waaw Pape ñaa la tur bi Pape Niang la bergerie bi nekk bergerie Pape Niang Petit Mbao kii mooy Salsep ma ngi am 19 mois nekk doom si roi Arthur roi Arthur nekk doom Bagdad yaay ji nekk mu Jogay waaw mu nekk xar boo xam ne am na avenir génne macération yu yu yu xam ne macha allah lañ koy wax parce que bi ñu am 10 mois demoon na fois ren li génnoon fa LCS 147.5 TP génnoon na fa 113. poids 105 kilos à 10 mois oto mu ngi fa génnoon 102.7 bu ñu ñëwee ba foire sectorielle euh, foire sectorielle bu Tëngéej bi bu Aram bi secteur Aram bi tamit évalué woon nañu ko foofu mu génnee LC 158 virgule 5 TP 124 virgule 6 oto 110.9 waaw tey ñoo exposé ko moom ak ay ay doomam ànd ay seexam ak yaayam waaw waaw fëlal mag bi mooy yaayam mais culul bi borom collier bu rose bi mooy yaayam waaw ñëw na aussi àndaal ak ay doomam. ay seex la fi wacce seex yaa ngi bu góor ba nek ni waaw sen yaay doomu Arafat la sadam bi waaw macha allah de on dëgg sa yàlla mooy suñu première participation waaw te retour encore luñ fi ñëwé ya, dal parce que foire xam nañu far eh. far internationale la ya? niveau aussi macha allah waaw te dekk nga def si tang rek da am lu mu yokkaat sa élevage quoi sincèrement répondre nañ président mom waaw comparé waa foire fi jëna a passé auparavant gis nañ sax du day am visite visite day ñëw sax instant parfois sax am problème tok sax instant ñoo ngi di xar yi visite baa ngi ñëw ma sha allah visite mu yott dal daal am nañ ko. Salsep bon instant bi production am lay xaar bu ma naax dugal ci concours bi malheureusement dafa foox dafa tel a instant mo ngi 19 mois donc damay gëna ko xanté ci production am instant mo ngi commencé di wacce may liggéey ci domi nank nank nànk di ko préparé xaar ko ma adulte incha allah wala dina wax gaay la lañ ko bàyyi xel. amna amna ay doom yu nekk kër ga mais tey yi laa exposé wa cheikh yi la andi dem rek wacce na ben waaw fekkee côté vétérinaire bi sax dina ki tuuti parce que man toxicologue la pa bi moy vétérinaire donc parfois mi ñëw diko diko may loxo rek waaw diko japp tout tout mais dal ñu ngi jëma jëma gorgol a góorgóorlu baax baax si côté élevage pa di wax gaay ñu gëna gorgol rek di ñaan yalla ñepp gëna a don euh, doon benn def encore élevage partage ñu xol ñu mëna liggéey wañu cioy ñepp yi ñëpp da ànd doon benn daal ñu jëm liggéey jëm élevage kanam. waaw di remercier ma ngi remercier ñepp mom waaw di remercier ñepp ok di remercier bureau bureau wa Adam bi parce que jëriñ liggéey bu mucc ayib waaw maa ngi remercier ñëpp